ne dama ko ci andi. Mhm. parce que karaté bi dafa informel woon. bu mhm. ma wax informel mooy. Mhm. xaalis bi dañuy jël cash la ñuy circuler kii yeeg yooyu ma ne loolu mënatul nekk. il faut que ñu jël ci ay mesures. yoo xam ne dañuy def transparence ma ne leen également dans le cadre de la formation. il faut que ñu former ñu bëri. parce que yàlla dafa def karaté bi ñi nga xam ne ñooy diriger salle yi. du ñoo xam ne am nañ formation pour diriger forcément. dañ nekkoon ci benn salle dem ba am yenn grade yi. Mhm. bàyyi ubbi seen saal. Mhm. commencé di tàngal di di entraîner ay nit. Mhm. te dafa am formation boo xam ne dafa am solo. booy karaté. dafa laaj euh, dafa am activité physique la ba pare. am technique gu karaté. booy jàngal ay xale. war nga xam xale bi. nan nga koy yoree nan nga koy jàngalee lan nga war a def ak lan nga dul def donc loolu yëpp ñu mettre ko en place. Euh, def ay résultat def ay résultats mooy lan. 2017 euh, dañ ma fal. Mhm. ñu dem championnat d' Afrique suñu équipe bi gagné. Mhm. gagné titre bi. 2017. 2017. Mhm. góor ñi gagné titre bi. année bi si topp ñu dem championnat du monde également. Euh, équipe bi dem ba finale de bronze. finale de bronze moom mooy dañ qualifié woon ba finale yi dimanche lañ koy def. day am finale de bronze am finale bi nga xam ne moom mooy. Euh, or or argent. boo xam ne Sénégal mosu fa dem. Mm-hmm. ñu ñu perte ak contre Italie. Mm-hmm. am na benn équipe boo xam ne Jordan ñu ñoo ko gagné woon euh, ci année boobu 2018. Mm-hmm. daaw ñoom ñoo nekk champion du monde par équipe. pour diir que niveau bi fi mu toll. yeneen changement yi nga xam ne dafa amoon ci karaté bi. mooy bi ñu defee karaté mu nekk discipline olympique mu waroon am Japon. dañ changer réglementation bi. c'est-à-dire que dafa am ay compétition yu fédération mondiale teg. yoo xam ne il faut que athlète bi di ci participer pour mun marquer ay points pour mun qualifier hmm. Sénégal amul ay moyens pour dem ci compétition yooyu dëkk yu mel ni Égypte dëkk yu mel ni Maroc dëkk yu mel ni euh, Algérie ñi nga xam ne ñooy les pays du Maghreb hmm. ñoom seen athlètes yi di participer ci compétition yooyu yëpp hmm. mu dem ba nga xam ne Égypte ci boppam ba fi ñu toll nii Égypte moo nekk pays bi nga xam ne mooy numéro un au niveau mondial ci ci ci ci combat. Hmm. xam nga boo gisee loolu te dans les années 2000 ñun temps yi ñuy compétir aussi égyptiens yi ak marocains yi suñ ginnaaw lañ daan nekk. Hmm. da ngay defee ne am na lu changé. Hmm. mais sport bu changé bu évoluer yow en interne boo évolué wul nit ñi dañ lay bàyyi ginnaaw. Égypte bi ma dellu si si rek égyptiens yi boo xoolee am na trois catégories au niveau sur cinq c'est les seniors yoo xam ne. égyptien moo nekk numéro un mondial pour nga nekk numéro un ay points ngay marqué ça veut dire que compétition yu mag yi ñoom ñu ngi koy def ñu ngi gagné compétition yu mag yooyu di gagné ay points yu bëri moom mooy tax ñu nekk ci kaw donc loolu moo tax ñun bu ñuy dem championnat d'Afrique day mel ni championnat du monde si ñun parce que ñooñu nga xam ne ñoom ñooy régné au niveau mondial ñoom la sénégalais yi di tasel te sénégalais régné wuñ au niveau mondial donc ay jafe-jafe yu tax peut-être mënoo leen mener à mission bi wala peut-être mënoo leen satisfaire que amuñu amuñu jafe-jafe yooyu. Mhm. xam nga boo amee comité directeur boo xam ne trente personnes la. Mhm. mu am ay kilifa yu mag yu nekk ci comité directeur bi. Mhm. wax naa ko ci plateau yu bëri. Euh, ancien président Maguette Sow ci comité directeur bi la bokk. Djibi Diallo préfet Dakar comité directeur fédération karaté la bokk. ak ñeneen ñi nga xam ne ay kilifa lañ ci li nga xam ne la ñuy liggéey. defe naa ne problème mu gestion du fa du fa du fa mënu fa am. Euh, ñoom ñiy wax noonu. ku mel ni Moussa jàlloo xam nga bugguma di wax ay gros mots mais xam nga nit munoo di wax fii di wax fële. Mhm. yàggul lool dem na suñu trésorier général adjoint bi mu ànd ak trésorier bi dem foofu di baalu. moom ci boppam moom Moussa Diallo uh-huh. Uh-huh. naan ko dañ ma doon wax loolu ma lu ma loo xam ne kiiwu ma ko gis naa ne ñii seen intérêt personnel moo leen yëkkati et tout di jéggalu di baalu moom Moussa Diallo moom ci boppam moom mu fi ñëw toog di la moom fi toogoon di wax hmm. te bugguma woon sax di wax ci moom parce que koo xam ne bi mu commencé il a parlé sur toi moom bi mu commencé di karaté dafa yàggul kenn xamu ko sax ci karaté bi bi mu commencé wax la nit ñi di wax kii mooy kan hmm. ñu wax benn fond boo xam ne covid 19 hmm. euh, ministre Matar bi mu fi nekkee bi Covid bi jàllee. Mhm. dafa fédération yëpp la oo ne leen ku ci nekk na ko defal exprimer ko ay besoin mhm. ñun comité directeur ñu réunir soumettre ko benn dossier. Mhm. ne bu ñu financer li yéeg li yéeg lii lañ soxla ni yéeg nii lañ koy doxalee. biñ ko bi ñu joxee financement boobu si compte fédération lañ ko dugal compte bi ñaari ñaari signature moo ci am man la ak euh, trésorier bi. mënuma ci génnee benn xaalis boo xam ne du bàyyi trace. ñu toogaat ma convoqué wax leen nan laa bëgg ñu doxalee ko. Mhm. ñu d'accord si nan la ñuy utiliser xaalis boobu parce que xaalis boobu c'était destiné à yenn problème yi nga xam ne moom la karaté bi di jànkonteel ñu régler ko si. Mhm. donc ñu décider ko en comité directeur. Mhm. ñu génne ay chèques jox liggéey yi nga xam ne ñoom la ñu waroon jàppale. am ñoo xam ne dañ leen si jàppale parce que dañ amoon ay tolof tolof. ku mel ni Lamine Cissé bi nga xam ne defe naa moom Moussa Diallo ñoo fi àndoon. Euh, dafa amoon ay problème euh, de santé. ñu jàppale ko si. loo xam ne chèque lañ ko jox loo xam ne du amul cash buy circulé ni rien du tout. Mm-hmm. fi waroon dem ñu defal ko fa scanner foofu lañ ko kii. Mm-hmm. bi loolu weesoo man xaalis au niveau fédéral. Mm-hmm. trésorier général moom mooy mooy gérer. man je suis l'ordonnateur des dépenses cest à man maa koy wax. nañ dépenser lii nañ def lii nañ def lii nañ def lii mais xaalis moom moo koy gérer bi loolu weesoo. bi ñuy dem assemblée générale en deux mille vingt deux bi nga xam ne suñu mandat jeex na de quatre ans ñu war a def assemblée générale ordinaire. trésorier bi def na rapport financier mu jémbal ko comité directeur. Mhm. ci rapport financier bi niñ utiliser xaalis boobu yëpp. Mhm. def nañ ko si. Mhm. bi ñu wee weesoo loolu ñun dañ am ay commissaire aux yoo xam ne dañuy ceytu. lépp loo xam ne dépensé nañ ko laaj factures yi laaj yëpp ñu jébbal leen ko. ñu jox seen cutus par rapport ak loolu. ñu dem assemblée générale ordinaire en deux mille vingt deux. ñu présenté ko comité direct euh, assemblée générale bi club yi ak ñoo ñooñu nga xam ne ñoo nekk di wax ci fond boobu ñoom seen bopp ñu approuvé loolu yëpp ba pare mhm. falaat ma pour quatre ans. Mhm. li may wax élection bi la woon. AG mhm. ordinaire xam nga deux mille dix sept a fal. ba def mandat ba deux mille vingt deux. ñu falaat ma fal boo xam ne ñëpp gis nañ ko. kon mandat bi quatre ans la. mandat quatre ans la ñu am. mandat bi ah, c' est des mandats de quatre ans en fait. Mm-hmm. njëkk am quatre ans après ñu falaat ma pour deux mille vingt deux lañ ma falaat pour quatre ans. Mm-hmm. Mm-hmm. donc ñoom seen bopp loolu nga xam ne fond bi utiliser nañ ko ñoom nga xam ne fekkee nañ ko. Euh, approuvé ko. je pense pas que dellu siwaat ci heure bi di wax fond boobu nañ ko kiiyee bu ñu amee euh, loo xam ne audité woon nañ ko. ok xanaa trésorier bi la ñuy wax nan lañ nan lañ gérer fonds boobu mais defe naa ne amul dara luñ ci kii billet d'avion yi ñu jënd pour dem euh, championnat d'Afrique de la zone de mhm. yooyu yëpp jox nañ facture yi ba mu leer nañ ñu jox ko commissaire aux comptes yi commissaire aux comptes ne gisuñu si dara. waa comité directeur bi validé ko ñu dem assemblée générale club yi. Euh, approuvé ko. Mm. defe naa ne donc à ce niveau là amul dara loo xam ne. dañ koy wax lu dul ñoo xam ne dañuy yàq de. ne Iba nañ nee nañ ñoom amuñu jafe-jafe. mais tey gis nañ ne tey karaté tey amuñu centre boo xamante ni peut bu ngeen amee def yenn compétition yi wala yenn passage de grade yu mag yi. Mm. peut-être di ngeen ko fa defee te il paraît que am na somme bu génnoon budget pour ngeen defar. damay damay delluwaat centre bi. waaw. Euh, moo tax ma ne la bu ñuy wax gestion. Mm. xam nga karaté depuis quatre-vingt-un la nekk fédération indépendante parce que ci judo la bokkoon. président yi fi jaar yëpp jéem nañ def tout pour karaté am yëfu boppam. Mhm. mais yàlla def sama sama sama si sama. magistère magistère la tombé. Mhm. Mhm. Euh, bi karaté nekkee discipline olympique bi fii secrétaire général fédération mondiale ñëwee wa ak comité olympique boobu Sénégal ñu ngi waroon organiser Jeux olympiques de la jeunesse en deux mille vingt deux. lañ ko kon programme après ñu déplacé ko deux mille ñu wax ne dañu war a rencontrer ambassadeur bi ambassadeur ambassade Japon ambassadeur bi dafa mos a financer fédération euh, du temps du président Souleymane Gueye pour à hauteur de presque cinquante millions boo xam ne en matériel la woon ñu ne léegi nañ soumettre une demande à l'ambassade pour ñu am la grande aide parce que Japon mm. ci ay ni muy jàppale euh, kii yi am na lu ñu tuddee la petite aide mooy boobu ak benn boo xam ne pratiquement plus de trois cent millions la mm-hmm. donc ñu njëkk a def benn plan pour montant boobu budgétiser ko et tout boo xam ne dañ na doon def temple bu mag mhm. waa Japon tontu ñu ne ñu on n'est pas éligible mhm. à cette subvention mhm. mais li ñu am mooy à peu près cinquante lañ éligible ñu ne cinquante deux millions yi lan lañ ciy def nañ ci tabax benn centre boo xam ne au moins fo dinañ mun def suñuy entraînement bopp parce que karaté mosu ko woon am avant Marius Ndiaye salle d'échauffement bi foofu lañ doon entraîner te bu amee kenn du ko kenn du fu kenn kenn kenn du fu mun a dem lu ñuy def ci ay saalu jàmbur la ñuy dem di entraîner donc ñu def démarche yi ba deux mille vingt trois bu ma jumulee hmm. japonais yi ñu envoyé leen plan bi hmm. envoyé leen euh, budget bi ñu choisir ensemble ak ambassade bi hmm. benn entrepreneur boo xam ne moo ko war a def loolu yëpp et régulièrement dañ doon informer comité directeur bi même plan yi fondation bi poutre yi ñu ci war a def fer yi ñu war a jënd waa Japon à chaque fois dañuy defal ay remontées di ñu wax fii pourquoi ñu def lii fii trois centimètres lañ def te côté bee deux centimètres lañ def ainsi de suite bañ taxawal dara ba retenir ko mhm. ñu d'accord ci loolu ak ñoom ñu viréel ñu xaalis bi dañ nañu sax buñ ko dugal ci compte fédération dañuy ubbi compte bu bees ñu ubbi benn compte au niveau de la CBAO ñu japonais yi viré si xaalis bi liñ d'accordoon ci ñoom mooy bu ñu koy tabax donc ñu nag ñoom ñoo validé ndoo plan bi mhm. buñ koy tabax balaay dërëm di génn nañ leen wax yan dépense la ñuy def ñoom ñu autorisé bu ñu ko autorisé ba pare ñun ñu génnee o départ sax dama leen wax mais pourquoi duñ leen bàyyi ngeen ñuy defal ay ñuy def yéen ngeen di def chèques yi directement au non de l'entrepreneur pour ñuy avance ñu ne ñu non ñun ñooy def chèques yi ñoom bu ñu defee une demande ñu donc c'est comme ça que ça à chaque fois ñu war a def benn euh, ay travaux dañ leen di wax voilà travaux yi nga xam ne moom la ñuy def. Mhm. wax leen montant bi ñoom ñu jox ñu seen ok man ma def check bi ak euh, trésorier bi ñu signé ko ñu def ci turu entreprise promoteur bi nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy tabax ba tabax bi jeex ñu defal leen rapport. ñu ñëw ak ambassadeur bi ñu inauguré ko centre bi mu ngi nekk euh, ci euh, stade Léopold Sédar Senghor. mais centre boobu nag la gars yi fu mu nekk foofu c'est pas c'est pas. waaw am na loo xam ne nag xam nga booy ñu euh, ministre bi Matar Ba c'est l'occasion pour ma remercier ko. Mm-hmm. moom moo ñu moom moom moo déplacé wu ànd ak préfet de Dakar préfet Dakar Plateau moom mooy Djibi ak su ñeneen membre bureau ak comité directeur. Mm-hmm. dem seet ci assiette foncière bu stade de l'amitié bi. fan lañ ñuy jox donc du ñun ñoo choisir ñu dem ba fenn foofu nga xam ne amul woon dara ministre bi ci boppam moo wax le directeur des infrastructures ne ko nañ leen jox parcelle fii jox ñu trois cent mètres carrés foofu mhm. donc loolu décidé wuñ ko parce que mënuñu woon am feneen terrain mhm. risque yi mooy boo amee feneen en dehors d'un stade wala yooyu mais problème de gestion day am euh, patrimoine bi day compliqué et cetera et cetera donc foofu mu ñu jox ministre bi moo ñu ko octroyé sur lettre officiellement ñu dem tabax foofu euh, boo xoolee fi mu nekk taekwondo am na centre ci biir ñoom ci biir stade bi lañ nekk carrément ñun au moins am nañ bunt boo xam ne dafay génn ci stade bi am nañ ay porte yoo xam ne à l'intérieur lay doon parce que stade bi dafa nekk en travaux mhm. chinois yi ñoo ko occupé fi mu nekk nii munoo fa def dara sans l'autorisation des des des des chinois mhm. te biñ koy inauguré ba léegi japonais yi amul dara lu ñu wax par rapport ak li nga xam ne moom mooy tabax bi. Mm-hmm. parce que plan yi ñoom lañ ko joxoon. ñoom ñoo ko validé woon. biñ ñëwee avant ñuy def inauguration bi ànd nañ ak Jap euh, ambassade bi ñu dem foofu ci ci ci centre bi. Mm-hmm. ñoom ñu constaté est-ce que li nga xam ne ñoom moom lañ validé woon. Mm-hmm. tabax bi moom moo nekk. donc xam nga loolu moom defe naa ne amul dara luñ ci wax. chèque yi est au non de l' entreprise bi nga xam ne moom mooy moom moo doon tabax moom lañ ko doon. entreprise ban kii la ban entreprise. entreprise su bâtiment la boo xam ne. moom Sénégal la wala. non Sénégal la. Hmm. na ñetti entreprise yu ñu choisir woon envoyé ko ambassade Japon. Hmm. ambassade bi décidé ban entreprise moom mooy ñun sax ñoo def ñun ñun ñoo décidé. am na ñenn ñuy wax ñoo xam ne dañ xalaatoon ne waroon nañ leen ko jox. mooy ku mel ni suñ trésorier bi day wax naan peut-être euh, moom war nañ ko ko mun jox am na keneen beneen professeur de salle bu doon wax loolu également. Mm-hmm. man na leen man xaw ma woon ne sax yéen ay entrepreneur ngeen tey jox euh, loo xam ne en toute transparence la. de bu nekkoon par exemple ñoom dañ wax il faut ñu def appel à candidature ñu choisir wala ki yëg yooyu. Mm-hmm. mun na compliqué parce que 51 millions nga war si tabax benn centre. Mm-hmm. defe naa ne même architecte bi nga xam ne moom moo def plan bi. pratiquement. fayuñu ko. Mhm. donc loolu yëpp suñu biir la nekk moo tax mu facile mu defal ñu facilité yooyu. Mhm. mais peut-être que bu ñu defoon appel à candidature jël architecte jël ki yeeg yooyu. Mhm. peut-être montant bi dina dépassé. te ambassade daf ñu waxoon ne même plaque bi nga xam ne moom la ñuy jënd taf ko ci buntu centre warul génnee ci xaalis boobu. même frais yi nga xam ne pour gestion bancaire xaalis bi la ñun ñoo ko war a fay. xaalis bi daal uniquement dañ ko war a dépenser pour li nga xam ne mooy tabax. mais mais mais li ma bëggoon laaj président pour relancer wu tuuti si par rapport ak mooy centre bi est-ce que sax pour man le fait que ñuy recevoir aide Japon. Mm-hmm. est-ce que du pour man c'est c'est pas un le fait que Japon di di jàppale Sénégal est-ce que tey du nguuru Sénégal ci boppam moo waroon taxawu sport de combat yi mm-hmm. budget bi nga xam ne moo war a jigéen ministère des sports. Mm-hmm. jëmale ko ci. différents sports yi nga xam ne moo am ci réew mi est-ce que du du budget boobu moo waroon tabax centre est-ce que du ministère des sports moo waroon accompagner fédération sénégalaise de karaté pour mu taxawal li nga xam ne mooy centre boppam. loolu loolu dëgg la parce que am na benn instant échangé nañ ci ak ministère ñu ne leen comme dañu war a réhabiliter stade de l'amitié. à hauteur de xawma vingt milliards bu ma juumulee. donc si vingt milliards yi bu ñu ci dugaloon benn cent millions wala deux cent millions de plus du ci wàññi dara pour ñu tabaxal ñu centre bi. Mhm. boobu bien avant ñun ñuy confirmer ak Japon ak ki yeeg yooyu. donc normalement peut-être suñu euh, njiit yi autorités yi sportive ñoom ñoo waroon tabaxal discipline yi ay centre mais ñun la lenn rek lañ am ak ñoom assiette foncière bi ministère moom moo ñu ko jox. ci biir euh, kii bi donc jënduñu ko defuñu dara moom moo ñu attribué à cette foncière bi sur 300 mètres carrés te si 300 mètres carrés yi la ñu la tabax. mais loolu j'espère que autorité yu bees yi nga xam ne ñoo fi nekk. Hmm. bu ñuy defati ay infrastructures sportives dinañ def de telle sorte que. Hmm. arts martiaux yi gis si seen bopp. pour Jeux olympiques de la jeunesse yi il est prévu au stade de la de Iba Mar un temple des arts martiaux. j'ai il est prévu parce que commencé guñ ko donc seen plan yi. ak euh, les financements de l'AFD wax nañ dañ def temple des arts martiaux maintenant après peut-être nan la ko euh, discipline yëpp di kii pour mun ko utiliser loolu euh, leneen la. voilà président en même temps aussi on a noté que en août 2023 donc fédération karaté participé woon na li nga xam ne mooy championnat d'Afrique mhm. de karaté avec huit médailles mhm. donc en en cadet et en senior. donc ñu am ci huite médailles c'était une satisfaction ñu bëri dañ ko dañ ko rafetlu woon maintenant par rapport à la gestion par rapport à la gestion ñu gis ne les acteurs ni nga xam ne ñoom ñooy pratiquer sport bi des fois ñu gis seen bopp ci ci ci mbir mi c'est-à-dire un karatéka peut être champion d'Afrique et rester maanaam pas je dirais pas pauvre mais rester en tout cas ci niveau de vie bu mu nekk est-ce que tey jii nii y a une gestion qui prend en charge aujourd'hui les les acteurs ñi nga xam ne ñoom ñooy pratiquer karaté wala tey jii ñi nga xam ne ñoom ñooy représenter Sénégal au niveau africain wu mondial ñoom ñoo ci gis seen bopp ñi nga xam ne ñoo nekk au niveau national nekk ci club yi aujourd'hui est-ce que y benn barème bu ñu teg en terme tout ce qui est de perdium tout ce qui est parce que tey jii ni ñu si bëri si ñoom ñi ngi pratiquer avec passion mais gisuñu seen bopp ci mbir mi. waaw xam nga loolu euh, dafa am ay fédération yu mel ni karaté wala yeneen. c'est difficile pour ñu fay ñi nga xam ne ñoom ñooy athlètes yi participer dafa am loo xam ne ministère moo ko réglementé ministère moo fixé bu ñu voyager compétition internationale euh, athlètes yi di am dix mille francs par jour officiels yi di am vingt mille francs par jour xam nga dix mille francs lu tuuti la et souvent budget bi du doy de telle sorte que dañuy xool yan priorité la ñuy def ci loolu loolu tout dernièrement ministre euh, Mame Mbaye Niang bi bi mu euh, invité recevoir les présidents de fédération échangé nañ ci moom ne ko nan la ñuy def ba yokk per diem yi li ci des ay prime la yoo xam ne dañ ko war a fay euh, athlètes yi ñun en tant que fédération li ñuy am ci fonds propre par année dafa bëriwul parce que ci ay licence lañ koy jëlee sponsorisation dañuy bind yenn entreprise yi te defe naa ne boobu suñu promoteur yi bu ñu mënoon xelal nan la ñuy def ba yenn sponsors yi di ñu di ñu di ñu di ñu jàppale parce que peut-être làmb ji Euh, visibilité boobu mu am ba nga xam ne sur deux heures ou trois heures ñuy wane ay plateau di wane sponsors yi ñun bu ñuy def suñuy compétition duñ ko wane en direct. mais est-ce seen compétition yéen a koy def spectacle. loo boo suñu compétition yi ñu ngi koy def spectacle moom mais xam nga spectacle c'est un peu c'est relatif. non quand di dis spectacle mooy ngeen ngeen boole ci culture bi par exemple boole ci aspect yi nga xamante ne nii day gën a attirer les sponsors pour ñu accompagner karaté foofu lay waxee moo tax ma ne visibilité. parce que xam nga bu ñuy organiser compétition karaté toute la journée lay durer finale yi dañ koy souvent prévoir entre dix huit heures et vingt heures mm-hmm. si la ñuy invité euh, médias yi pour ñu ñëw parce que finale yi du gudd si la ñuy invité euh, nu mu tuddati autorités yi également donc loolu lañ doon wax naan bu ñu sañoon sponsor yi ñoo jàppale parce que au delà de aspect compétition bi Euh, karaté dafa am ay valeurs yoo xam ne da koy véhiculer mm. ñi nga xam ne dañuy ñëw di entraîner di képp ku jël sa doom dugal ko karaté du activité sportive bi rek moom nga moom moom moom moom moom moo la soxal mm. parce que am na discipline yi dañuy yar xale yi ci biir mm. dañuy tàngal seen yaram dañ leen di jàngal àdduna et tout defe naa ne am na ñoo xam ne aussi loolu moo leen euh, yëkkati en plus de ça karaté day def ay résultat mm-hmm. pour man euh, sponsors yi loolu la ñu war a accompagner en fait Mmh. au delà de visibilité bi nga xam ne ñun ñoo koy def am nañ ay bonne volonté yoo xam ne à chaque fois par exemple euh, ñu def ay activités dinañ ci jàpp. Mmh. Euh, am na plusieurs fois yoo xam ne am na ay at def nañ ay résultat ñu ànd ak suñu athlètes yi. dem seeti ay bonne volonté ñu may xaalis athlètes yi ñu jox leen ko. Mmh. loolu def nañ ko à plusieurs aujourd'hui ñu ngi préparer les Jeux olympiques de la jeunesse de deux mille vingt six aujourd'hui est-ce que fédération bi prévoir na ay jeunes athlètes yoo xam ne on les a préparés durant des années pour mën a di gagner ay médailles olympiques parce que tey compétition olympique quoi qu'on puisse dafa am solo ci ci ci sport de combat. Mhm. donc tey jii nii est-ce que fédération bi préparé na ay jeunes yoo xam ne ay xale yoo xam ne vraiment dañu am ci ñoom yaakaar pour ñu pour ñu dem gagner ji ay médailles olympiques. daaw dafa am euh, suñu coach yi ñun dañu am benn euh, division boo xam ne détection rek lay def dañu wër ligue yëpp wër Sénégal yëpp convoqué ay xale. sur une journée sur deux jours pour def détection xool xale yoo xam ne xam tranche d'âge bi nga xam ne moo war a yéeg deux mille vingt six xam nga xale yi war a yéeg deux mille vingt six deux mille vingt six entre et ans la ñu war a am parce que Jeux olympiques de la jeunesse la donc ñu am ñu ci sélectionné créer une base de données parce que booy booy euh, préparer une compétition dafa am ay éléments yu bëri yoo xam ne day entrer en jeu mm-hmm. di gis koo xam ne dinañ ko sélectionné ak résultat am yi nga gis kenn koo xam ne am na aptitude yi mais gañeegul nga xool nan nga koy préparer bu mu commencé def ay résultat mm-hmm. actuellement li ñu desee moom mooy suñu athlètes yooyu mën di participer à des compétitions internationales parce que WKF dafa am lu mu tuddee ay Youth League. Mm-hmm. mooy yoo xam ne ba minime sax bu leen neexee ñu ñëw yéeg. Mm-hmm. de souvent day am camp d'entraînement. donc bii bu mujj bi euh, am na ay athlètes yoo xam ne dañ leen bëggoon déplacé wu. mais ministère financé wu ko am nañ yaakaar ak euh, ministère bu bees bi que compétition bi am au mois de juillet mm. nga xam ne xale yu pro yoo xam ne profil 2026 si lañ bokk dinañu permettre ñu yóbbu ay athlètes yoo xam ne dinañ commencer di xam suñ athlètes yi ban niveau lañ toll par rapport ak kii il faut savoir que karaté résultat yi def yu bëri au niveau mondial ci ay cadets la ko def ak ay junior mm. benn médaille lañ am mondial au niveau des seniors mais dans la petite yu baax te boo xoolee à chaque fois ñu dem championnat d'Afrique aussi suñu cadets yëpp ak suñu juniors yi en général dañuy nekk sur le podium. Mm. voilà donc loolu moom wooru naa suñu coach si mm. pour préparation bi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy. man li ma bëgg a xam mooy euh, yow bi nga nekkee à la ba léegi euh, en 2017 ñaata assemblée générale d' information moo mun nga organiser. daaw organiser nañ assemblée d' information. xam nga man bi may yéeg ay problème laa fi fekk deux 2017. Euh, waaw. mu am ay problème yu amoon ci Ligue de Dakar mu miine fédération man mun naa wax ne depuis ma nekk fii chaque année day am ay problème yoo xam ne nit ñi seeni problème personnel la ñu kii euh, pour te dire euh, ancien président ki nga xam ne moom laa remplacé hmm. dem nañu ak moom justice à la suite de l' assemblée générale de deux mille vingt dix dafa de deux mille vingt deux dafa assigné euh, fédération assigné ministère des sports par rapport ak déroulement deux mille vingt deux assemblée générale deux mille hmm. ñu débouté ko mu ah, ak irrecevabilité te ba léegi mu ngi continuer di donc dafa nekk nit ñoo ñoo xam ne euh, nasaxal li nga xam ne moo fi nekk ak li nga xam ne moom lañ fi doon def di ko jalgati mhm. defe naa ne loolu lañ namm moo tax ñu bëgg a dellusiwaat di yàq der di kii mooy li ma wax rek boo amee comité directeur boo xam ne trente membres la mhm. bu amoon problème bu gestion wala problème karaté am problème defe naa ne problème yi fa lay commencé ba pare mhm. parce que ñi fa nekk defe naa ne amuñ benn avantage ci karaté bi hmm. euh, voyagé wuñu euh, amuñ ci benn intérêt euh, dañ dugg ci comité directeur bi pour jàppale en fait hmm. ki nga xam ne dafa dugg pour jàppale defe naa ne bu gisee lu dul dëgg da koy wax hmm. bu amoon problème mu gestion du ñeenti nit ñoom ñooy jóg di wax problème mu gestion te comité directeur bi tasul te kilifa yooyu ma la wax yi nekk ci comité directeur bi duñ jóg wax ne ah problème gestion am na et cetera et cetera ba pare génnee ko comme ñoom seen bopp ñooy njëkk a bàyyi Hmm. parce que li ñuy gis euh, du leen neex en fait. léegi yéen da nga nekk bras de fer ak ñoom te ñoom nee ñu tant que sote woo jóge sa poste bi ñoom lu ñu am. jàmm moom lay wax du bras de fer xam nga. mais ñoom bras de fer lañ ko jàpp wa moo tax ma ne la ñeenti ñeenti membre comité directeur la. waaw te gis nga ñu ñuy organiser week-end bale passé compétition bu rëy boo xam ne am na trois cent xale yoo xam ne inscrire nañ pour participer ci compétition bi. waaw bi fees fees dell. donc defe naa ne du munul nekk bras de fer. Mhm. xam nga lenn lay wax rek. wax naa ko keroog ci conférence de presse bi man leen xool leen profil ñooñu nga xam ne ñoom ñooy nekk di di di di di di dénigré mhm. euh, ku mel ni trésorier général fédération la woon. waaw 2017 candidat la woon comme man ma gagné ko donc kooku amul woon lu ko neex. Mhm. mu nekkoon membre commission d' arbitrage bu fédération africaine. Mhm. li yàlla di def bi ñu demee 2017 ci championnat d' Afrique yi président commission bi génnee ko ci commission bi. Mhm. donc année yi si topp ma ne ko du ma investir ci moom ci arbitrage parce que am nañ ay jeunes arbitres yu fi nekk moom ça faisait 30 ans ou plus de 20 ans. moom moo doon dem di def arbitrage moom moo doon def examen yi moom rek moo doon dem mais bu ñu la génnee ci commission ñun ñu am ay xale yu xarañ yoo xam ne war nañ mun def seen examen mais dañuy commencer investir ci xale yi. Mm-hmm. koo xam ne da nga nekk mag am mm-hmm. ay problème de santé. defe naa ne dootuñu continuer di la yóbbu ba pare bàyyi fi xale yi nga xam ne am nañ possibilité. loolu c'est normal. loolu neexu ko woon. Mm-hmm. mooy mooy mooy li may wax rek. mais est defoo ko pour fayu. non du tout. du tout parce que dama si d'accord ak ki nga xam ne mooy président commission bi man génneewu ma ko ci commission bi tant que mu ngi doon nekk ci commission bi bu ñuy mu am problème mu santé duñ ko yóbbu pour mu arbitrer alors que ñu am yeneen xale yoo xam ne mhm. euh, depuis lors ñun actuellement am nañ lu mot vingt arbitres yoo xam ne arbitre euh, niveau africain la ñu am jàll nañ seen euh, examen mhm. am nañ ñeent yoo xam ne niveau mondial la ñu am loo xam ne gëjoon nañ ko am moom def na arbitrage au niveau mondial ba sonn da ko doon échoué. Mhm. donc damay wax ne ku ci nekk intérêt bi nga doon am moom lay wax ne moom bi mu fi nekkee moom moo nekkoon trésorier général du temps du président Souleymane Gueye il a traîné beaucoup de casseroles du mu ci dugg ci détail yooyu. Mhm. loo xam ne karatéka yi dañ ci teg seen bët. lu mu daan def loo xam ne c'est des gens yoo xam ne ils se servaient du karaté. Mhm. léegi nag nga xam ne dañ teg transparence ma ne leen léegi xaalis dootul circuler ma créé un compte euh, benn. code marchand. kon président d'accord nga ne problème bi c'est un problème d'argent. non non non du problème d'argent. non xam nga moom laa waxoon ne coow coowal xaalis bi. moo indi moo créé moo indi création mouvement bi. Mhm. ba monsieur Diallo ñëw toog fii di parce que moom bëri na ci li mu doon kàddu yu mu doon yëkkati. Mhm. mbirum xaalis la doon la doon évoqué. moom mbirum xaalis boo xamante ne nii au lieu mu jaar ci trésorier bi ci président bi lay jaar directement xaalis boo xamante ne nii peut-être. Euh, genre xaaral ma leeralal rek ñoom duñ ci am lu leer. moom la moom moom lay wax xaalisu fédération dafa am ñaar am na xaalis yoo xam ne cotisation euh, club yi la mooy seen affiliation annuelle ak renouveler seen kii xaalis boobu mosuma ko laal amul kenn ku la mos wax ne jox naa président sama affiliation mosuma ko laal. xaalis Covid bi ñuy wax trésorier bi moo ko yëkkati ci boppam dugal ko ci compte bancaire bi président defu ci dara euh, bu ñu daan dem compétition internationale yi nga xam ne trésorier bi day dem xaalis bi trésorier bi moo koy yor donc lépp luy xaalis ci fédération trésorier bi moo koy gérer. dafa am ñaari compétition yu ñu dem yoo xam ne président rek a dem trésorier demul. Hmm. ñaari compétition. international te xaalisu bu ñuy bu ñuy dem compétition internationale ministère bu joxee xaalis le responsable principal c'est le délégué fédéral mooy président de la fédération parce que c'est pas l'argent de la fédération hmm. xaalis boobu bu ñu paree kan la ñuy rendre compte rendre ñu compte karatéka yi ministère la ñuy rendre compte donc j'étais le seul officiel man maa dem ak délégation deuxième fois bi euh, Afrique du Sud lañ dem trésorier bi demul lu tax demul parce que dañ ko jàpp ci trafic de visa. moom trésorier bi déglu déglu ma wax la rek. dañ ko dafa dañ do bi ñuy dem championnat du monde yooyu may wax ne demul. Mhm. dafa def lettre suñu ginnaaw pour demander ay nit visa Turquie yàlla nattu ko ambassade Turquie contacté ñu envoyé ñu lettre bi bi ñuy dem championnat d'Afrique un mois ou deux mois après ma ne leen moom du dem loolu moo andi ñaari yoon yi nga xam ne compétition internationale te bi ñuy dem Afrique du Sud trésorier adjoint moom moo yoroon xaalis. ñu voyage donc man gérer wu xaalis liquide li may gérer lool lu moo moo tax ma ne la transparence bi ma bëgg a andi boo xam ne assemblée générale 2022 laa ko njëkk a wax mhm. laa leen wax ne leen bu ma sañoon ñu bàyyi cash bi circuler parce que cash bi circuler di jaar ci trésorerie bi man je suis l'ordonnateur des dépenses bu ma xamul xaalis bi ñaata la mënuma ordonner benn dépense mhm. donc dërëm bu dugg war naa et war war war war naa ko yëg war naa ko xam maintenant bu nekkee dañ am problème boobu pour xam ak déposer xaalis bi ci compte bi mais si laa wax ne dañ def code marchand nga xam ne képp ku fay sa affiliation au lieu nga dem joxe ko cash. boo ko mm-hmm. dugalee ci compte marchand bi day dugg ci compte ci compte fédération bi directement. Mm-hmm. compte bi ñaari signature la man ak euh, trésorier bi man mënu ma ci génnee xaalis. Mm-hmm. code marchand bi kenn mënu ci def dara xaalis boo ci dugal. kenn munu ko génneewaat parce que code marchand noonu lay boo ko euh, accolé ak benn compte bancaire ci compte bancaire bi la jëm euh, directement ñooñu di ñooñu nekk di wax président dinaa waaw ma terminer rek ñooñu nekk di wax <laughs> uh-huh. ñooñu d'accorduñ ci code marchand bi trésorier bi nag ci boppam lu ci bëri moom moo ko andi ndax loolu ñu commencé woon di ko def ak transparence bi nga xam ne moom la ñu commencé woon di def uh-huh. ak leneen li moom mooy ay assurance yoo xam ne nit ñi dañ ko fay te xamuñ fan la ko dugal uh-huh. allo euh, président da am na ku nekk France Fodé Ndaw euh, le directeur des équipes nationales maa ngi koy nuyu moom mooy dugg euh, en direct ci Lutte foo Fodé ziar naa la yaa ngi en direct Lutte TV. waaw. ah on a invité aujourd'hui le mhm, euh, le président El Mokhtar Diop. Mhm. Ah, par rapport ak situation bi taa yi ci karaté bi. je pense que seetaan nga ko depuis boobu ba léegi euh, lan moo waral woote bi. waaw man man man li rek mooy euh, pour man situation amul quoi c'est-à-dire que am na ñoo xamante ni dañuy mer. ñenn ñi kontaan. Mm-hmm. loolu lu àdduna tëddee l'unanimité mm-hmm. amul euh, koo xamante ni am na. l'unanimité mm-hmm. amul yàlla rek moo ko am. dëgg la par contre li ma bëgg wax mooy tey jii man je suis directeur des équipes nationales ci technique laa mën a wax. waaw wax ci technique. il faut ñu wax ne ñi nga xamante ne ñoo ñu wax. Mhm. sama sama sama xarit Ali Ndiaye nga xamante ni man ak moom xamante nañ bu baax. ñun ñoo nekkoon euh, champion du monde muy def champion du monde maa nekkoon bi champion du monde. Mhm. donc booy wax ci xam-xam il faut nga am aussi euh, fooy waxee Ali Ndiaye par exemple tey jii. Mhm. ku mel ni nem champion du monde war naa mën a am ay diplôme. yoo xamante dina wane ne dina mën a wax ci karaté techniquement mais war na mën a wax ci karaté mm. parce que tey jii am na lu mu def ci karaté waaye karaté toll na foo xam ma jox la exemple mm. boo amul yenn diplôme yi munoo enseigner boo amul yenn diplôme yi munoo coacher mm-hmm. Ibrahima Konaté tey jii ay diplôme la yor yoo xam ni ja jàng na ko au niveau mondial mm-hmm. Cheikh Diagne aussi même chose mais ñi nga xamante ni dañu soxla dañu mën a ñëw mm-hmm. aujourd'hui liggéey ci xam-xam ndax ay sulam ma tooñ leen sama yi ma tooñ leen dafa am luñ tuddee da nga war a am xam-xam mhm. beneen bi aussi boo nekkee karaté ka nekk champion du monde am loo am mhm. sa xaalis di ko jël sa temps di ko ci bañ mhm. ko tax président am nay athlète ah. xaalis jox ko athlète yi suñu xaalis dañ koy def ci athlète yi. di dem ay compétition di fay suñu man mii wax ak yow. émission bi naa leen di man maa koy jël fayal sama bopp. dëgg la. ak jëloon dugg na grâce au Sénégal champion du monde. Mm. donc di wax ne Ibra président mu ngi mu ngi may dégg di ma ko mm. confirmer. Mm. karaté dafa changé réglement a dafa changé tey jii Aliou Ndiaye ak ki wax nga woo ko nga laaj ko règlement d'arbitrage bi. Mhm. dugg ci détail nan la ñuy prêter athlète bu mhm. la ko wax même management boo xamante ni moom nga war a yor ma jox la exemple tey jii pour participer championnat du monde hébreu mhm. c'est les trois meilleurs africains ñoom ñooy participer championnat du monde par équipe yi di ñëw mais pour nga participer ci tey jii Sénégal bokk na ci ci Sénégal ci équipe boo xamante ni amuñu moyen de préparation Jeux africains yi la ñu gagné suñu championnat du monde moom championnat du monde individuel yi di jëm. Mm. c'est les trente deux meilleurs au monde. Mm-hmm. trente deux meilleurs au monde ñoo war a participer ci benn ranking. Mm, mais nga war a def nan. Mm-hmm. nga war a góorgóorlu ut xaalis góorgóorlu donc dañuy xaar ci ñenn ñi. ñu ñëw jàppale ñu ñu xaar ci ñenn ñi ñëw dugg ci technique bi. Mm-hmm. karatéka il faut être karatéka il faut faire du karaté. venir faire de la technique la formation ñu jàppale aujourd'hui les techniciens les professeurs de salle même yow mais demal nga jàppale athlète yi. jëm jàppale léegi Fodé man xam lu ma bëggoon xam. yow uh-huh. waaw li ma bëggoon xam situation bi est que narul nekk di pourrir si basket euh, karaté sénégalais situation bi bras de fer mm. bi am. nga xam nga tey jii. Euh, man mm-hmm. bu may wax damay wax ci technique par mm-hmm. rapport à. Mm-hmm. allo. tey su ma la tey. ministère ah. ministère des fois respecté. yéen a ngi dégg. waaw allo. na appel ak naasaan. on a ñu donné délégation. yéen a ngi dégg. waaw maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg. waaw dama ne dañu war a li may wax am na solo top Ibra même yow journaliste je pense alors ñëpp ñuy tuddee délégation de pouvoir délégation dañ ko jox délégation pouvoir vers état. délégation bi. allo ligne bi la. hiérarchisation la. donc ci biir hiérarchie boobu il faut que ñu nekkee tey jii fédéral ab bi ay nit jóge fële. Mhm. ne d'accord ñu ay nit jóge fële ne kontaan ñu ñu war a mën a ne ah day yàq non xoolal championnat du Sénégal bi passé. championnat du Sénégal bi passe ça se passe bien mmh. les formations les mhm. grades tout se passe bien mhm. on n'a pas de problème mmh. maintenant politiquement président il est bien placé pour parler de la politique mhm. au niveau du comité directeur au niveau du bureau directeur mais man li ma la wax nos activités mais marche <laughs> donc ay keroog gars yi dem nañ stade Amadou Barry def fa par exemple les Jeux olympiques mais ça pour moi c'est ne pas respecter même le comité olympique Parce que quand tu parles aujourd'hui de Jeux Olympiques, mm. tu dois passer quand même par le comité olympique, mm. par la fédération. Ça Comment va. des gens qui n'ont pas aujourd'hui délégation de pouvoir, le niveau de nous, automatiquement, dit loo xamante ni joxuñu leen kàddu pour ñu wax ko. mais mais Fodé Fodé man xam nga moo ma jaaxal. wala Fodé man li ma jaaxal mooy sa cas yow nga nekk directeur des équipes nationales mais nga basé wu en France pourquoi ñëw basé wu ici au Sénégal lan moo waral loolu. voilà là ça c'est des très bonnes questions qu'on qu'on dit. Mm. aujourd'hui fédération bu nekk dafa am lu muy tëddee. Ah. aujourd'hui on est dans l'ère en tout cas de la technologie. Ah. nous avons un directeur technique national c'est lui le patron du karaté sénégal. Ah. Mm-hmm. c'est pas moi. Mm-hmm. donc le directeur technique sénégal moom tey jii bu basé wu woon sax peut-être étranger. Mm-hmm. ñu mën mais c'est le patron qui est là-bas. on m'a nommé pour manager l'équipe nationale avec des coachs. Mm. On a des coachs qui sont au Sénégal. Mm. Man déjà di wax ne Fodé Ndaw basé wu déjà étranger mooy xeet nañu suñu directeur technique. Mm. xeet nañu suñu entraîneur. nañu respecté suñuy entraîneurs yi nekk Sénégal. Mhm. Fodé Ndaw léegi est-ce que mën na toog fii di def ay aller retour di manager avec le président. Mhm. di travailler aujourd'hui avec le monde c'est comme le football. le mhm. football travaille aujourd'hui avec des des des athlètes même qui sont même pas aujourd'hui au Sénégal te ay le lañ nekk di football di def lu leen neex de temps en temps ñu woo leen ñu football si. y a combien de personnes qu'on peut avoir des expertises lu ñuy tuddee yoo xamante ni en ci ay sénégalais ma doon sénégalais aujourd'hui au niveau de ce poste-là, en tout cas tous les bagages au niveau, en tout cas des diplômes qu'il faut, je peux manager à distance et en même temps venir au Sénégal. Mais, mais, Donc je réponds à cette question pour que le directeur, des oui, équipes nationales, oui. Mhm. est-ce que tu dina mëna nekk à l'extérieur mëna gérer ñi nga xamantene ni acteurs yaangi fi Sénégal. Ah. acteurs yi fii bu fekkee tu es directeur des équipes nationales ça veut dire que tu dois être présent pour mën a que ça soit détection yi nga war a def. mais mhm. am na ay coachs qui sont responsables de ça. les coachs sont ici au Sénégal. mais mais c'est la personne morale mais c'est qui doit manager n'est-ce pas. il a aussi. qui est Dakar président j'aimerais bien répondre personnellement puisque c'est ma partie un peu où j'ai envie quand même d'échanger même même yéen journaliste yi. Mhm. Mhm. ñun a changer ñun suñu suñu sport dafa a changer. xam-xam lañu war di waxee. on a ce qu'on dans un profil un poste tous les postes il y a aujourd'hui des missions mhm. ku ci nekk da nga am ay mission ku ci nekk da am lu war a dérouler déjà li wax ne la détection qui fait la détection non tu dis pas que c'est le directeur des équipes il faut qu'on change xam-xam c'est pas pour rien qu'on a aujourd'hui des l'INSEP, mmh. des gens sortent de l'INSEP, mmh. des, professeurs aujourd'hui d'université qui parlent du management de sport. Mmh. Mon rôle en tant que directeur technique national, est-ce que c'est de, de, dire sur Sénégal pour faire une détection mmh. Ce qu'on appelle une organigramme. Quand on a un organigramme, nous avons des rôles et des missions. Mmh. Moi, mon rôle, fait aujourd'hui. mais mais Fodé Fodé Fodé dama lay interrompre foofu tuuti dama lay xam nga dama mais dans les autres pays dans les autres pays nga xam ne euh, euh, euh, est-ce que yow di nga gis des directeur des équipes nationales bu basé wu à l'étranger dans les autres pays est uh-huh. un pays ami uh-huh. qui font des très bons résultats le directeur technique national seen directeur mm-hmm. qui est un ami c'est un mm-hmm. Belge qui habite en Belgique avec qui je collabore léegi ban avantage la loolu am nee na ban avantage la loolu am yow nga basé wu à l'étranger est-ce que loolu ban avantage mais mais mais les une question il faut que j'aille au bout allez que dama ne on était en train de parler de rôle et mission parce que mhm. si on parle aujourd'hui des avantages et des comprendre quelle est automatiquement la base de ça quand un directeur technique national, par exemple, marocain, est parti aujourd'hui, automatiquement dans leur fonctionnement, c'est les head coachs qui s'occupent de tout le management du sport sur place. Mmh. C'est leur fonctionnement. Chez nous au Sénégal, c'est pas comme ça. Chez nous au Sénégal, c'est le DTN. Mhm. Donc le DTN est sur place mhm. parce que c'est lui aujourd'hui qui manage tout le sport. mon rôle, aujourd'hui, c'est de travailler ce qu'on appelle avec les entraîneurs nationaux. Donc, les entraîneurs nationaux, par exemple, je vous donne un exemple, n'ont pas les moyens de pouvoir voyager et savoir ce qui se passe, par exemple, au niveau des règlements, etc. Moi, mon rôle, c'est de ramener un peu, en tout cas, toutes les informations au niveau de la mm. Fédération mondiale, au niveau, justement, des nouvelles réglementations, mm. de manager l'équipe nationale en pouvant, en essayant, justement, de tout faire et budgétiser, proposer à la Fédération les nouveautés, etc. Mm. Et de pouvoir dire que nos coachs puissent être au top, en tout cas, et puisse rivaliser avec, en fin de compte, les Français, les Anglais. Donc, mon rôle, que je sois au Sénégal, mmh. que je sois à l'étranger, je peux le faire. Pourquoi Parce que en étant même en France, ça me facilite. Parce que je voyage même un peu plus. Mm-hmm. Je suis un peu plus partout. je suis au cœur des choses et qu'à un moment donné, cette expertise va permettre à nos entraîneurs nationaux, à mon technique national de continuer. Et vice-versa, de temps en temps, quand ils viennent ici, on les accueille pour sillonner le monde. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle des stratégies de développement et de nouveau management au mais, niveau du sport. Mais, mais, mais, voilà, mais faut, euh, directeur, mais est-ce que Meda Yang suivre Est-ce que euh, c'est, est, ce que Meda Yang suivre au niveau international question boobu question boobu <laughs> question boobu maa ngi doon xaar baax. Ah, ah. vous avez vu même des des des des trucs regardez les gars. Ah, moi j'ai été champion d'Afrique je suis le rare personne avec Dame Ndao à gagner deux titres de champion d'Afrique consécutifs avec aujourd'hui Ablaye Diop. nañu mm-hmm. wax ne par exemple le palmarès d'avant. Mm. et je vous dis que comparaison n'est pas raison mais je vais le faire. Mm-hmm. je vous donne un exemple quand vous comparez aujourd'hui le Sénégal nous à l'époque Je vous donne l'exemple de par exemple. Ali Ndiaye a, été champion d'Afrique une seule fois. D'accord mhm. Mais il a été champion du monde. Mhm. Dando n'a pas été champion du monde. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. On a un ranking. Le ranking mondial, ça n'existait pas à notre époque. Nous, on n'avait qu'un champion d'Afrique et on avait un champion du monde. Maintenant, aujourd'hui, dans le ranking mondial, je vous donne un exemple. Le Sénégal, dans les résultats, aujourd'hui un titre de champion d'Afrique avec les juniors et les cadets. Et je vous donne un exemple de vous dire que le championnat d'Afrique, à l'époque, il n'y avait pas les cadets, il n'y avait pas les juniors. Mmh. Aujourd'hui, nous regroupons les cadets, les juniors, les, les, les, les seniors et les espoirs dans une même compétition. Mhm. Mais c'est compliqué. Mhm. Donc, qu'est-ce que je vous dire C'est qu'à l'époque aussi, les autres pays, ce qu'on appelle comme le Maroc, ils n'étaient Donc, ils n'étaient pas aujourd'hui comme nous. Mais l'Égypte, par contre, nous a toujours battus. Mm. Ali a été battu par exemple, aux championnats africains en Non, à chaque fois, on rentrait qu'avec deux médailles d'or, c'est faux. Mm-hmm. À Abuja, on est parti, on est rentré avec deux médailles d'or. On n'est jamais rentré avec autant de médailles qu'on est en train de dire. Mm-hmm. Par contre, on a été bon à l'époque parce que la conjoncture n'était pas la même. Mm-hmm. Par contre, parce que Au niveau des moyens, ça demande plus de moyens, plus de matériel, plus de voyages avec le ranking, etc. Donc forcément, on ne peut pas avoir les mêmes résultats qu'avant. Cependant, si on regarde aujourd'hui l'actuelle euh, Fédération mondiale de karaté, le Sénégal est au parce que nous faisons partie des 32 meilleurs au monde. Mm-hmm. Nous faisons partie aujourd'hui des Euh, des pays qui sont qualifiés au championnat du monde avec l'Égypte, avec le Maroc et le Sénégal, même l'Algérie, on était devant eux. L'Algérie qui est un pays extraordinaire, qui participe à toutes les compétitions. Moi, je pense qu'il faut qu'on respecte en tout cas euh, la science du sport pour pouvoir analyser avec beaucoup plus en tout cas de recul et ne pas faire l'émotion avec des résultats des médailles d'or, etc. Le football, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit Il Ben, ça veut dire quoi Est-ce que c'était un bon résultat, pas un bon résultat Le prochain championnat d'Afrique, ça va être fait. Non, il faut analyser, il faut réfléchir, il faut regarder les paramètres qui sont autour, en tout cas, euh, euh, du sport, pour mieux analyser en disant on gagne ou on ne gagne pas. Mais on dit toujours demb, demb, demb. Il faudrait revenir à la réalité du monde d'aujourd'hui et même pour la lutte sénégalaise.

amène à discuter de la lutte en tant que telle, mais c'est pareil pour le karaté. Mm. Le karaté a les dimensions de Qatar, de comité, des dimensions aujourd'hui internationales, de nouveaux changements, d'une mondialisation. voilà yéen baal ma ci français bi. jërëjëf dafa am yoo xamante ni du ko mën a wax. ci ah, ah. ci ci donc pour dire pour terminer. pour ah. faire une conclusion. Mm. di remercier yéen déjà journalistes mais vous faites partie aussi des éléments qui font avancer le sport. Mm. ça veut dire que aller vers euh, les informations. qui sont dans le management du sport, discuter peut-être avec le, le, secrétaire général du comité olympique, le président du comité olympique, peut-être le ministère, peut-être discuter avec le CAPS, discuter avec des gens, en tout cas, qui sont beaucoup plus, en tout cas, Euh, placé pour parler du sport, comme vous le faites aujourd'hui, évitez la fédération qui a délégation de pouvoir, qui sont le tutelle. Vous pouvez donner la parole à tout le monde, mais je pense que vous aussi, vous pouvez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, Merci. confronter les idées mhm. pour que le Sénégal puisse gagner encore meilleur. Mm -hmm. Et on apprend toujours. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup appris Et avec ça, je pense sénégalais va aller encore mieux mhm. avec toutes ces critiques-là. Voilà, je, voulais juste euh, intervenir. C'est pour recadrer, parce que quand on parle de Fodé, Fodé, c'est pas juste euh, l'ancien vice-champion du monde. Mmh. actuellement en France, à Besançon, dafa am club élite. Wow. Il forme des athlètes yoo xam ne dañ nekk équipe nationale de France. Tout récemment, janvier, euh, dañ am ñaari athlètes yu participer Karaté yoo xam ne il faisait partie des cinquante meilleurs au niveau mondial. bi ñ paree pour ñu préparer Jeux africains yi mais dañ leen bàyyi ak Fodé ils sont restés en France se préparer. dans les athlètes sénégalais les athlètes sénégalais am nañ trois quatre athlètes yu nekkoon ak moom. Hmm. Euh, biñ demee foofu lañ jógee ñoom France lañ jógee ñëw Accra pour participer à la compétition. y avait Mokhtar Diop. Mokhtar Diop mi nekk médaille d'argent. mu ngi woon foofu ci préparation bi. Maïmouna Niang mu ngi woon foofu à Besançon di préparer wu. Falidou Diop amoon na kiy def kata aussi Omar Diop donc poste poste bi monsieur Diallo doon décrier mooy le fait que. ci la ci laa bëgg ñëw wax ay combattants yu nekkoon Besançon. non non non ñooñu Sénégal lañ nekk. dañ nekk foofu en stage. janvier lañ jógee Sénégal. Hmm. participer ci Karate League One bi waroon am Paris. biñ paree ñu dem Besançon toog foofu. pendant plus d'un mois. préparer wu pour jeu parce que loolu ñun ñoo ko décider auparavant. Mhm. dañ ne buñ dellu see Sénégal préparation bi mun na xaw a kii nañ leen bàyyi ñu toog Besançon parce que amoon nañ visa lon séjour six mois la ñu amoon amoon nañ possibilité toog foofu ñu toog préparer wu ak Fodé. def préparation Accra lañ jóg dañ jógee Paris euh, Besançon du moins ñëw fekk ñu ak Accra. moom moo moom moo andi résultat yi xam nga li ñuy wax. Euh, af Fodé le fait que mu nekk Besançon avantage la pour fédération à plusieurs mesures pourquoi euh. moom il travaille il collabore avec la fédération française Fodé il est solicité par l'Égypte mm-hmm. il est solicité par le Maroc il est sollicité par l'Algérie waxuma Sénégal de pays yooyu yëpp ñu ngi xëcc Fodé pour jël ko comme entraîneur te pourtant mu ngi mu ngi mu ngi Besançon moom li muy def da koy def pour jàppale le karaté sénégalais euh, athlète yi bi ñu nekkee foofu fédération yónneewu leen xaalis ministère yónneewu leen xaalis seeni waajur yónneewu leen xaalis Fodé moo leen jël en charge préparé leen moom moo andi résultat yi parce que xam na ne pour ñu gagner égyptiens yi pour ñu marocains yi dañu am centre boo xam ne seen équipe nationale yëpp cadet junior senior fa lañ leen loger à temps plein dañuy dem di jàngi di dellu soit ci centre bi di entraîner Maroc loolu la def ñoom noonu la ñuy def seen athlètes yëpp ñi ñu sélectionné yëpp ci centre lañ dëkk di wu di entraîner ñun amuñu moyen pour def loolu mhm. mais de temps en temps à plusieurs reprises suñuy athlète dem nañ ci Fodé toog fa pendant longtemps préparé wu maintenant dañ am ay entraîneurs yu nekk fi Sénégal wax nga am nañu responsable détection mu ngi fii Kaolack Souleymane Cissé le coach de l'équipe nationale euh, Ibrahima Konaté il a été champion d'Afrique il était membre de l'équipe nationale mhm. il est il est de il est, il Louga mu ngi fii à Dakar il est coach mondial l'entraîneur Kata il est là donc dafa am lu ñu def loo xam ne nan la ñuy boolee ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ak Fodé mi nga xam ne moom moo nekk ci biti ñu coordonné loolu donc c'est ça qu'on a réussi à faire te athlètes yi boo leen interrogé woon athlètes di leen wax ban avantage la leen Fodé di di andi. basket seen entraîneur bi fan la basé wu. du temps de profil yo actuellement nii. Ah. Desagana fu mu nekk. Ah. États-Unis la nekk. Mhm. période bu mu leen di jël day am benn fenêtre mu ñëw fii entraîner leen. Mhm. mais bu ñuy def regroupement Fodé day ñëw li mun def ak ñoom mais souvent coach Konaté mun na ko mun na ko def pour man te loolu dafa nekk ay décision yoo xam ne comité directeur lañ toog la directeur technique il a fait ses nominations. Mhm. ñu discuter ko en comité directeur ñu valider ko bi ñu koy def ñooñu euh, di di di critiquer. mais pourtant jour boobu ñu ngi fa woon bi ñuy décider ne Fodé Ndaw la ñuy def comme directeur des équipes nationales. li may li may li may wax rek pour pour pour pour daaneel foofu defe naa ne boo gisee euh, koo xam ne dafa ñëw di jàppale di xaalisam di teg. Mm-hmm. sur le plan technique li ma li ma la wax nii euh, Fodé bu bàyyi woon Sénégal daf koy arrangé. parce que boobu da sax France dina ko bu bàyyi woon c'est-à-dire que liñ kii bu nekkoon dafa arrêté. Mm. nekkatul suñu directeur des équipes nationales. Mm. Maroc dina ko jël. wala Algérie dina ko ji ñooñu ñëpp ñu ngi koy démarché pour récupérer ko laa lay wax nii te pourtant mu ngi Besançon. bien sûr parce que nit ki li nga xam ne mun na ko apporter sur le plan financier athlètes yi mun accueillir foofu pendant longtemps ci club am di leen jël en charge. Mhm. peut keneen munu ko ministère du ko financer keneen du ko du ko du ko financer. amul athlète boo xam ne dafa nekk ci moom. boo xam ne dañ koy jël muy ñëw di participer ci compétition athlète yëpp fii lañ jógee ah. dem Besançon préparé wu ñëw fekk ñu Accra def ay résultats résultats yi ma lay wax moo tax ma ne la. Euh, Mokhtar Diop bi nga doon wax mais ki mu taseel final mais moom mooy euh, champion du monde en titre donc ñooñu la ñuy taseel au niveau au niveau africain ak marocain yi nga xam ne seen centre lañ dëkk di entraîner guddeeg bëccëg. léegi voilà léegi pour dellu si damay wax ah. rek damay wax rek xam nga damay dellu si ci ci wax ji. je pense il faut émission. waaw pour pour kii rek damay damay dellu si waat bu boobaa bu fi dellu si eh, damay dellu si ci ci kii doon wax rek. xam ah. nga bu bu bu bu bu bu amee ñuy coow da ngay moo tax ma ne da ngay xool profil ñi nga xam ne ñooy coow. gis nga transparence bi la doon wax ak yooyu nga xam ne moom laa yëkkati woon sànq ci trésorier bi moom moo nekk à la base de tout ça. nit ñi juste une question le trésorier dañ ko jàpp ci affaire de visa. Mhm. et que y' pas eu de sanction ni de la fédération ni ministère de sports. Mhm. ci koo xamante ne nii te tey c' est le trésorier. général. Mhm. de la fédération sénégalaise de de karaté. ñu jàpp ko ci trafic de visa. mu continuer di nekk trésorier. non moom moom lay wax jàpp bi dama ne la lettre bi. dañ ko en non dafa nànk rek. mais parce que lu nekk dafa am discussion dañu am comité directeur. bu dara xewee dañ koy yóbbu ci comité directeur bi ñu discuter ko foofu lay foofu lay waxee. dama ne la xam nga am ñoo xam ne boo àndee transparence rek arrangé wu leen transparence li muy andi moom mooy lépp dañ koy jubal. Mm-hmm. compte code marchand bi pour lépp jub la. parce que képp koo xam ne affilié nga li nga fay day dem directement ci compte fédération bi. Hmm. compte fédération bi man bu mu fi génnee su la ko dul noonu mais day bàyyi trace ci compte bi dinañ ma wax lii yaa ko ordonné woon pour lan la woon. ne naa la suñ suñ commissaire au compte yi bu ñu dem assemblée générale dañuy auditer c' est pas juste ñëw xool nii. Hmm. pendant deux mois chaque week-end ñu oo trésorier bi di ko laaj telle dépense bi ñu def ana facture yi. ñu génneel ko facture yëpp tegal ko ba ñoo ñu def kii assemblée. comité directeur validé ko ñooñu validé ko. dama pour pour pour pour daaneel rek. waaw dama dama la bëgg wax ne la. Euh, boo jëlee ñooñu ñooñu euh, ñu ñu ñooñu di wax noonu wax nañ sax boo wax affaire grade la la dernière fois Ali Ndiaye wax na boo wax yenn yi Ali Ndiaye dama bëgg a tuuti rek ci moom avant may terminer Ali bi muy karaté man ak moom ñoo bokkoon saal. moom Ali Ali Ndiaye ak moom ñoo bokk saal. waaw sama kër la daan fanaan fa la daan lekkee fa la daan naanee. Ali bu gañee compétition waxuma championnat d'Afrique ni championnat du monde man maa si jàpp parce que man maa ko doon préparé mu ngi mu ngi xam naa ne dina seetaan émission bi dina ma dégg. ñi ma ma ñi ñu màggandool buñ déggee Ali muy wax dañ naan xanaa du Ali Ndiaye mi doon ñëw ci yow moom moo nekk nii di wax ci yow parce que dafa am fu ñu jaar sama kimono moo ko doon fóot waxuma ko pour yàq der parce que moom bi ñu nekkee champion du monde boo leen delluwaatee ci yi dana ne lii dama ko déjee sama idole Mouhamed El Mokhtar Diop boobu man fekkeewu ma euh, résultat yi dafa am loo xam ne bu fa nit yeggee nit ñi ñoo war a posé wu question parce que dafa am ñoo xam ne euh, dafa am lu leen yàlla may peut-être chance la ñu jàng def ay résultats am fu ñu yegg am na ñoo xam ne peut-être seen kii ci sport bi la la la la la jaaree. Mm-hmm. ba mu nekk champion du monde Ali Ndiaye def na fi campagne contre président Souleymane Gueye Souleymane Gueye bëggoon nekk président UFAC xam nga kooku du patriot yow sa benn président Sénégal bëgg a nekk président UFAC nga def campagne contre moom di war yeneen président yi naan buñ ko voté loolu benn la ci li mu def loo xam ne mun nañ ko lim parce que dañ ko associé wul ci li nga xam ne moom la ñuy def. Mhm. parce que un Fodé wax na ko sànq bu nekkoon am na diplôme yi nga xam ne moom la war a am pour coacher ñu jël ko mu coacher parce que champion du monde la diplôme yi amu ko. topp na fi ay président à plusieurs reprises président Souleymane Gueye mi loon wax Ali Ndiaye bëgg ñu may ko premier degré ñu ne ko premier degré dañ koy passé parce que ministère moo koy joxe fédération mënu la ko may diplôme yooyu bu ko amoon bu buñ ko waree jël comme coach ñu jël ko mais moom il est basé en France Ali Ndiaye fu mu dëkk dëkkul Sénégal. il en ñoom ñuy critiqué Ali Ndiaye ci ñoom la bokk Ali Ndiaye France la France la nekk bëgg a nekk président fédération bi mais ma ne président fédération mais. Aly Ndiaye tuuti na ci Iba ah, ah tuuti na ci tuuti na ci lool xam nga waxuma pour yàq der parce que ñun xamante nañu ñun suñu biir nee naa la Aly Ndiaye bi muy ñëw suñu saal suñu maître dafa bañoon parce que dafa am loo xam da ngay xam jikko nit ki xam nit ki duñ ko formé xam ko ci boppam Aly Ndiaye ñun dañ ko xam bi muy njëkk a voyagé bi ñu koy yóbbu Canada dorama moo ko yóbbu Canada suñu saal man maa waroon dem ma ne leen man dama am ay examen du ma mun dem ci compéti ci ci dañu invité woon quarante cinq jours boo xam ne canadiens yi ñoo ñu jël en charge hmm. ma ne leen man du ma mun dem parce que dama am ay examen parce que man sama jàng moom bu nekkoon priorité par rapport ak karaté bi may ba loolu moom mu yóbbu Canada ma jàngi ba am sama doctorat hmm. ñu mujj dugal Aly Ndiaye kenn bëgguloon mu dem parce que xamoon dañ njort woon ne bu demee du dellu si pourtant bi ñëpp demee ñëpp dellu si nañ moom dafa toog il a fallu gendarmerie royale moo ko jëlee andi ko dama lay wax ne dañ xamante xamante boo xam ne du xamante ndaw lim lim ma def ba nga xam ne man ak moom oote na fu nekk pour nit ñu juboo leen ma ne Aly Ndiaye xam na ne dama ko bàyyi parce que dafa am loo xam ne boo ko séq ak nit muy ñëw sa kër di fa lekk di naan di fa yendu ba nekk champion lu nekk mu ko fay def lu nekk nga defal ko ko fu nekk nga jaar fa ak moom dafa am comportement yoo xam ne bu koy def da ngay xam ne kii il n'est pas sincère intérêt boppam moom moo ko moom moo ko moom moom moo ko yëkkati moo tax ma ne la dañ xamante mm-hmm. Ali Ndiaye bu daan bu ñu daan karaté lan lay wax bu ma demee ak El Mokhtar combat ba mun ko cadré ça veut dire que jàpp naa forme pour wax la rek man bi may def compétition man aussi nan laa tolloon ci compétition mm-hmm. xam nga lan moo tax ma karaté ma arrêté compétition internationale 97 bi ma nekkee champion d'Afrique Euh, Abdou Diouf daf ñu recevoir ma demandé pour def étude sport pour ñu utal ma bourse pour ma dem defi sport étude sport mhm. kenn jàpp si ba loolu mujju mujjul am ma ne leen bàyyi naa compétition internationale léegi damay consacré wu suma si laa dem Canada mhm. du état Sénégal du fédération du kenn ku ma jàppale pour moo dem jàngi Canada dellu si waat donc ñi nga xam ne ñooy nekk di wax ah. mooy mooy ma si dellu si rek boo mhm. amee commité directeur boo xam ne ay kilifa ñoo fa nekk ñoo xam ne banque la ñuy liggéeyee ñii ay autorité lañu euh, te ñenn ñi man maa leen copté dugal leen ci biir pour ñu renforcer management nu karaté bi. Mhm. préfet Djibi Diallo man maa ko copté. man maa copté ancien président Maguette Sow xam nga mhm. fii doo fi gis benn fédération boo xam ne ci comité directeur di nga fa gis ay ancien président man maa leen copté bàyyi leen ci biir. Mhm. pour ñu jàppale ñu pour ñu tette ñu. defe naa ne ñooñu bu amoon problème mu gestion. <laughs> ñoom ñoo koy njëkk a soulever te leneen li dafa am ay cadre yu ñuy discuter. comité directeur mooy cadre bi nga xam ne fa la ñuy discuter di càmbar yëf yi lu ñu war a régler ñu régler ko foofu. Ah. ñooñu. Mm-hmm. def organiser nañu ay réunion yu bëri comité directeur. bu ñu organiser jël ay mesures yoo xam ne comité directeur moo ko war a jël ça veut dire que le quorum était atteint ça dire que ñi war a ñëw ñëw nañu. Mm-hmm. mais bu amoon blocage bu amoon loo xam ne problème mu gestion la wala leneen leen leneen boo moytuwul comité directeur bi mooy njëkk a instance yi dootuñ mën a kii ñu ngi organiser ay compétition malgré ça daaw dem nañ championnat du monde am deux athlètes yoo xam ne ils sont classés neuvième de leur catégorie te ñooñu aussi pendant un mois et demi chez Fodé lañ préparé wu pour def résultat Besançon lañ jógee pour dem euh, Hongrie ñu ñëw Accra même chose on a des athlètes qui ont gagné ay Open Belgique Open Allemagne tout récemment bu nekkoon li ñuy def baaxul suñ munuñu càmbar athlète fii hmm. mu dem benn open en Allemagne gagné ko wala ñuy dem championnat du monde di def ay ay ay résultat li may wax li fu may daanale rek li tax euh, au niveau africain ñu am ay problème résultat mooy li ma la wax Égypte mooy première nation karaté égyptiens yi plus d'un million de licenciés lañ am de karaté ça veut dire que en termes de fonds propres ñoom ñoo ñu ko ëpp fuuf égyptiens yi duñ dem sax à l'étranger di préparer seen entraîneurs yi ñu ci bëri ay doctorat lañ am en sport te spécialité karaté la def ñun nag loolu yëpp lañ bëgg a teg ñu am ay entraîneurs yoo xam ne suñu entraîneurs nationaux ñeen ñuy wax détection troisième degré lañ am karaté rek le ministère autorisé daaw pour mu organiser formation troisième degré amul benn discipline boo xam ne autorisé nañ nga def ko. donc loolu day wane rek ne en interne am na liggéey boo xam ne am na boo xam ne am nañ confiance des autorités am nañ confiance waa comité olympique. au niveau mondial également. Mhm. donc loolu defe naa lu ñu war a kii la parce que boo xoolee tout récemment même partenariat yi nga xam ne ñu ngi koy signé ak Italie. Mhm. pour préparer Jeux olympiques de la jeunesse am nañ ay sponsors yoo xam ne ñu ngi ñuy oo ay équipementiers par rapport ak Jeux olympiques de la jeunesse. Mhm. je pense que loolu day wane ne. am côté am nañ confiance ci karaté bi. Mhm. am nañ confiance ci li nga xam ne ñu koy def te am nañ yaakaar ne. Mhm. karaté mën na parce que temps bi mu ngi ñuy xoj te liñ ci waroon wax yëpp euh, lan ngay man lan ngay. lenn lenn moom pour situation bi. du ñu nga situation karaté du nekk dama lay dama lay wax ne la <laughs> parce moom moom lay wax nii xam nga maa ngi lay wax ne la. Mhm. Moussa Diallo boobu ngay wax. ànd naag suñu trésorier dem seeti Souleymane Baalu. si kañ loolu mois de janvier bi yàggul. no mais moom ñëw na fi le le trente avril. la fi ñëw moom laa leen waaw déglu ma rek non le vingt quatre le vingt quatre la fi ñëw. le mercredi vingt quatre avril. moom laa lay expliqué. dem na ci kooku. wax ne dañ ko wax waxloo woon lu bëri mu ngi jéggalu regretté na parce que lii parce que là. c'était au mois de janvier. au mois de janvier. mais avril waa déglu rek. Uh-huh. déglu waaw parce que xam nga loolu amoon na benn apaisement bu amoon ba nit ñi doon dox pour juboole waaw. trésorier bi ñëw na sama kër. moom trésorier en personne. en personne ñëw na sama kër. loolu mois la. janvier bi ma lay wax nii. ñëw baalu regretté ne karaté bi du yàquoo ci loxoom. mooy ki ñu jàpp ci trafic visa. déglu déglu déglu ma ba seet si baalu regretté ne karaté bi du yàqoo ci loxoom. ma ne ko changement yi ñu teg muy orange eh, code marchand bi. ak li nga xam ne dañ bëgg mu set ci karaté bi loolu du changer te dynamique boobu la ñu jël loolu 2022 laa ko njëkk a wax en assemblée générale vidéo yi yaat ma loo yor na ko déglu rek dama leen wax ne leen dama leen wax ne leen dama bëgg ñoom ñu dimbale ma xaalis bi ñu koy dugal directement ci compte fédération bi parce que si la gestion bi di gën a mun nekk une gestion saine mm-hmm. si la ñuy gën a mun contrôler li nga xam ne moo koy dugal ñu xam aussi exactement ñaata mooy dugg te nit tant que cash mu ngi circuler problème mun na posé wu nit ki yàlla mun na ko nattu loolu la loolu la loolu laa leen wax te mm-hmm. daaw lu mel noonu am na fi parce que commissaire aux comptes yi détecté benn benn trou bu rëy boo xam ne am na fi te trésorier bi dañ ko wax mu andi rapport financier am andiwu ko donc ñooñu moom lay wax seen intérêt personnel moo leen yëkkati dafa ne la quatre personnes sur trente mm-hmm. déggoo ñeneen yi ñu wax boobu ba léegi ñeneen ñu ngi doon jéem a arrangé ci suuf parce que coow aussi arrangé wul kenn yàq aussi arrangé wul kenn mais am na si ñooñu am na si ñoo xam ne dem nañ suñuy partenaire di leen wax naa leen boo leen organiser telle compétition compétition bi boo matul kenn du ñëw. mais bi ñu ko organiser compétition bi populaire ba bëgg a dee xam nga ki nga xam ne dafa bëgg a defar. buy def ay ak ak non waxuma ne waxuma ne amul problème. Hmm. xam nga euh, dama la ne nit am na ñoo xam ne buñ gisul seen bopp ci dara rek. dañ ah. ciy jëpp xëpp suuf. loolu moom fii lañ ko fekkee. groupe boo xam ne mu ngi fonctionner toujours. Hmm. bu dara kiiwul it di nga gis nit ñi di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko xëpp suuf. loolu mënuñu mënuñu si dara. Hmm. ñun lan lañ leen wax dañ ñu élire pour quatre ans. waaw ah. quatre ans bu jotee dinañ defaat assemblée générale pour éliraat ay nit. Hmm. ñoom nañ préparé wu fal seen mbër. ba nga xam ne bu ñu defee assemblée générale. ñoom ñu ñoom ñoom ñoom ñu gagné wane li nga xam ne moom lañ mënee. assemblée en deux mille vingt six day si la ñuy def assemblée générale. Mm-hmm. mais ñun ak ñoom lañ falandoo en deux mille vingt deux ñu ngi fa woon bi ñuy fal. nee naa la am na ci kenn koo xam ne moom ci boppam euh, Lamine Cissé warul woon wax parce que membre comité directeur la dafa ñaan njekk ñu jox ko parole mu may gërëm ci jàppale bi ñu ko jàppale. si fond boobu muy wax. Mm. ci ñooñu di ngañ ci la bokk. te vidéo yi yor nañ ko. Ah. moom laa lay wax xam nga nit. Ah. mais comme gisatul boppam. waaw tul. Mm-hmm. comme ni mu daan voyagé avant. Ah. avant compétition bu am moom mooy voyagé. Mm-hmm. léegi voyagé tul. gisatu ci boppam ba noo def noo noo def noo def noo def noo def bu yàq ba dañu ñaan yàlla rek ah. léegi daal li may wax nit ñi mooy karaté bi ñoo ko bokk léegi ñu li ñu lay ñaan boo mhm. leen di préparé waat compétition incha allah nga jaar wala nga délégué kenn mu jaar fi ñu waxtaan parce que prochaine compétition yi xam naa léegi ngeen def ay yenn compétition yi ñu gën a développé waat parce que temps bi daf ñu. incha allah amul benn problème vraiment kontaan naa di la <laughs> di la remercier. jërëjëf di la sant ci info kii bi eh. invitation bi parce que leeral yi. waaw euh, baax na si. Mm. Euh, man lépp li may wax dama koy teg ci ay preuves. gis nga assemblée générale boobu j'ai les rapports ici. Mm-hmm. j'ai le procès verbal signé par le ministère. j'ai le procès verbal des commissaires aux comptes. Mm-hmm. pour wan ni ñu ne leen. Mm-hmm. du fond boo xam ne dañ ko utiliser n'importe comment. man daal lim lay ñaan nga woo nga woowaat famille karaté yi bi yëpp. ngeen toog nekkaat benn ñoom. Moussa Diallo nekkoon nañ ci nekkoon nañ ci tànk. parce que Sénégal dafa karaté dafi am. moom laa lay wax nekkoon nañ ci tànk yooyu. moo tax mm-hmm. am na ñu bëri. Mm-hmm. bi ñuy jogaatee ñenn ñi sax dañ ne ñi xamuñ li ñu bëgg. Uh-huh. defe naa yàq moo leen yëkkati seen intérêt personnel moo moo. Uh-huh. ba si préfet euh, di ko remercier am na ñu bëri ñoo xam ne dem nañ seeti ko pour nit ñi juboo mm-hmm. mais dara boo koy wootee day sincère ci yow. mais yow yëg nga ne yow euh, bind nañ benn pétition yóbbu ko ministère. pétition boobu ñun dañ tontu. point xoolal xoolal pétition boobu dañ répondre point par point parce que amul dara luñ ci soulever. Ah. loo xam ne discuter wuñ ko woon en directeur. Ah, c'est vrai point par point ba ci grade yi dañ ko soulever en comité directeur. c'est des décisions j'ai rencontré le ministère ci pétition bi j'ai répondu dama def une note réponse boo bëggee mun naa la transférer réponse bi ñu envoyé au niveau du ministère mm-hmm. nga gis point par point loo xam ne comité directeur lañ ko discuter càmbar ko ba jël ay mesures ci loolu président jërëjëf <laughs> jërëjëf kontaan nañu merci beaucoup merci encore mais ñu tuuti rek ñu sunu sunu sunu sunu euh, bawol bawol bi la la la kii de Tapha Tine di ko nuyu encore di ko gërëm